salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi pour yéen ñi bëgg a xam lan moo tax jàpp ñëw biir Ramadan ak lan moo ko indi jàpp Baye Zale ko indi biir Ramadan li tax Baye Zale indi ko pour suruxal ëmbadi bajaan la yaa ngi dégg yàq ëmbadi bajaan pour nit jinaan naan ëmbadi bajaan feccatul mag la dafa war a féete boor jàpp ñëw moom moo ko jëlee fële indi ko léegi nag ku gis problème yi da nga yaakaar ne Wally sekk moo am ak problème ak Sidi Diop Baye Zale moo am problème ak labelu Subatel di utiliser Wally di ko teg ci digg bi pour xeexee ko il faut ñu nangu loolu point d'interrogation la mais loolu Wally moo ko war a xam mais Wally tamit bu indee day jaay wala wala jàpp yaa ngi dégg bu lu ko neexul du am moom moo ci bëgg a ànd ak moom moo tax mu am lu ko neexul du am Wally président bi moo jiite bu ko indilee kaña bu bëggul kaña gi kaña gi du dugg du ba yàq dara mais moom moo ko bëgg kon ñun loolu yaa ngi dégg bu ci dara mais dañ koy wax bu gestu ay ditu démbam waali dem na ba dootul toogati ñoom ëbbati ba jaat waali dem na ba dootul toogati ñoom ëbbati ba jaat clip bii ngay gis nii yëpp ëbbati ba jaat da ko daan defal tournage yi moo koy def mooy créer fecc bi mooy def lépp mooy toog studio di xool loolu lépp bët ba jaat defatu ko day jekk-jekk rek gis ñu bàyyi ci paas bi benn affaire bu dugg bàyyi saat dem nañ Paris hôtel yooyu nga gis Mara doon dugg naan bi di saggu ah fii laay saggoo fii laay dayee duusu Clarisse nekkuñu la nekkoon benn hôtel bu tudd bii bii hôtel Raymel Maison maa ko yónnee Baye Sall man man parce que dama ko yërëm ne ko cinquante euros la par jour ñëwal fii Baye Sall ñëw indi fi fi Issa indi fi ñeneen ak bi dafa borom hôtel bi daa ay valise su Baye ko boo fayul du génn bu fay bétaa bi bétaa la fay li ci des fayu ko xam nga kat moo ko fay Pape benn Sénégalais buy liggéeyee ci biir hôtel bi Baye Sall si ci Sénégal Pape naan ko damaa soxla sama deux cent cinquante mille bu bañ du ko wuyu bu ko wooyee mu naan ko tey suba gannaaw suba sëñ bi naa la lijjanti maa ngi doog a yegg si fàttewu ma la ba ma woo Salimata Gueye Salimata Gueye laa woo Salimata maa ngi wax ak bu fay ko xam ngeen kan mujj fay sa xaalis boobu Matar Diop suba teel ku ma Matar Diop Soubatel boo mujj fay xaalis bi nga xamante ni Baye Sall jëloon na ko hôtelu jàmboor fële ca Raymond Benso Paris yaa ngi dégg Pape lebal ko ko Matar Diop Soubatel moo ko fay barki Serigne Babacar si bi ma yaakaar déggoo leen ma ni nga doon ko ciy dugg déedéet kenn nekku fa dañ fay dem pour soo rek du maaraa du moom amul ku fa dal Diop Soubatel nag fa la nekkoon mais ñoom nekkuñu fa bu nu fa ñëwee rek tooj boo leen fa indi wala def def seen vidéo génn amuñu fa dégg du dégg du waaj du dara ñoo bokkoon hôtel ñun yëpp ray bel beso la nekkoon maa leen woon hôtel ba wan leen tur bi parce que promotion la doon def ba yërëm Baye Sall woo ko waale da xoolaat ay nitu boppam da xoolaat ay nitam da xoolaat ay nitam barki alxuraanu karim da xoolaat ay nitam Amady Badiane dan koo bëggoon a jaxaseeg sénégalais yi boo tax ñu woo jàpp ba ci kaw seet bi ne ko ëmbadi moom mooy décidé bu dee waaw nee naa waaw mooy sa papa ñoo bokk dam daan ëmbadi mënul wax lu dul fekkal lu mu waxoon leneen Sénégalais yi gàññi ko ne ëmbadi ku baax day si sumaan ba di maye xaalis tamit foo nga gis may jàpp xaalis day ne maye moo leen gën a muus gën leen a intelligent li may wax ëmbadi wax loo ma ko déedéet li ma gis laay wax te kenn du ko weddi te li ma naqari mooy dëgg yi may wax di ñu nekk ram daan xam nañ ko police bay di ko wax ñoom ñoo ñuy woo après ay appel naan ñu aadama doo nit toj nga réew mi aadama doo nit li nga wax nii kenn du ko dindi ci àdduna bi aadama xaw ma dëmm nga xaw ma jinne nga li nga wax doo nit ñoom jooy demaat même personnes yi ci waale naan ko aadama li waxee waru ko woon a waxee Pawlish Mbaye li mu waxee waru ko woon a te ñoom ñoo ñuy man moom maa ngi ay preuve ku ci génn démentir bi ma dëgg sa day noonu laa mel man noonu lay doxe ndax xoolaat ay nit boppam ñii dañ koy utiliser pour xeexee ko dañ koy utiliser pour géeree ko waaye dem na ba dootul toogati ak ñoom Amady Badiane awo Banda yaag day jaay Banda yaa gis neen fara cekkeeg fara maaree ñuy fecc ko seen déedéet barke Serigne Babacar si day jaay Banda yaa day dénoncé awa li nekk si di xool sax xamu ko bu ngeen ko xamoon bàyyi àdduna public bi rek ngeen xool ay dof ngeen moo tax na xoolaat ay niti boppam Pawlish Mbaye lépp lu mu wax dëgg la ba lépp lu mu wax téere la ban amul ku may woo di démentir parce que man du ma waxantu bala maa dee ñuy wax ñu naan Matar Diop la àndal léegi ah Matar Diop da koo fay Matar Diop léegi pour mu yàq waale ñun kenn ku passé Matar Diop daloo mën a fay ñun ñun ñuy wax dëgg ñu dee ci dëgg nga wax ay Matar Diop ak ku ne xam na ne waale laa bëgg Sénégal gi yëpp man waale rek lay doyoo ku dul waale Ballago Seck faale wu ma la mais man damay wax dëgg dafa am ñoo xamante ni jàpp na ne bu ñu waxee waale Ballago Seck dëgg du nu lekk te du nu naan mais looloo. ñiy ànd ak waale yëpp ku ko ci génn wax ko dëgg doota lekk doota naan ah parce que waale yor seen lépp ñun nag waale yoru su dara dañ koo bëgg te yàlla tax dañuy lekk dañuy naan hôtel bu mu tëdd ñu tëdd fa fu mu fay ñu fay ko amuñu dara lu ñuy ci dara kenn joxuñu lekk kenn joxuñu laa am na lépp li yàlla di maye lépp ñi ngee mun ci dëgg rek la di lox waale moo bëgg lii lépp lépp la xam nag xam nga lu may bañ waale xamul dara déedéet lépp la xam lu ñee def rek ñoo ko collaboré la ñoom lépp la xam lu ko neexul du am waali lu mu bëggul du am barki Serigne Babacar si xam na lépp lu mu bëggul rek du am lépp la xam nan bàyyi naan xamul dara eh, non non d'accord ba loolu Pawlish lu mu wax dëgg la man lu ma wax dëgg la ku génn nag démentir ba ci wax jii may wax ba génnee preuve yu leer nañ teg ko ci taabal ji te kenn du ko dindi wasalaam